rahmaani rahim laa xawla wala xawata illa billahi azim kon mbokki julli mbokki Medina Fall teen maam jaaram mbokki xadaratu tijaniyam asfiyaw maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen sant di leen balu àq di leen balu du samay kàddu kàddu yaay jaal géey la présidente xadaratu tijaniya bu teen maam jaaram ma di leen xamal nag ni li may wax man du bari ndax yaajaal nee naa ko santal mbooleem xadra bi naa ko santal mbooleem daayira bi naa ko santal mboolem koñ bi ndax lii bu dee law ba toll nii ñun jigéen ñi kat bu yeboo ñu ni yàlla ak xaar njaay mi toog la ndax xaar njaay mi moo ñu njëkk a may conférence bi dugal ci xaalisam bu bari ñu di ay jigéen bâche benn baas ba tey jii ñu di ko gàddul sunu bopp di ko defal lii kon dañuy wax ni xaar ñu ngi lay jaajëfal dañuy wax ni xaar li ngay wut ci sa àddina yàlla na la ko yàlla may ci daraje Rasulullaay ndax bis bi tuyaaba ju ci nekk cër buñ ci am rek dañ koy bokk ak yow ndax suñu xel mosu ko woon a xalaat sunu xel mosu ko woon a njort kon yaa jaal nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yaa jaal nag dafa am loo xamante nii dafa ma ko yóbbante ci mbooloo mi ca yóbbante boobu nekk na yóbbante boo xamante ni àq la su ma ko waxul damay juum ndax yaajaal nee na jéemul waxul deful dindiwul ca lu mu wax ñépp ànd ceeg moom gis ngeen ren jii bu ñëpp gis ni dañoo otes woon daaw ay brodé ren ñu ñëw ak ay waax yaajaal nee na bu brodé dee jar ñaari junni waax di jar téeméer ca baxa di baxa nañu sol baxa bu Seydi Aboubacar si ñu jargaaleel ko tànt bisitëg bi tey loolu moom moo ñu yóbbu ren ji ci sunu baxa may ñëw nag ci panin bi ak marraine bi ñooñu samay canti bopp laa leen di cant samay canti bopp ak canti borom kër gi laa leen di cant ndax tey ñun ñoo la gën a bëgg Cheikh Al Hadj koo dama ko mën a doo ko nangu na ndax bis bu ne nga werante looloo tax ñu jël bis bi jagleel la ba jagleel ko soxna Fatou Wade bëgg gi ñu ko bëgg moo tax ñu njukkale waat la bis boobu tey ñuy ñëw ci suñu ñaari marraine pare yi ndax ñaari pare yi moo tudd kenn ki di bàyyi yaakaar naa ne bu mu juum conférence fukki at la ci def ñoom ñii ñu jigéen xatal ci genre dañ leen di delloo ko waaye wutuñu ñun ci ñoom ñu am seddu wuñ ci ñoom ñoom am am ndax ñoom bis bi lañ ci daan jàpp ba mu jàpp te du pare la ren bi ñu réunion bi ñu xam ne ñu laylatu xadr conférence mosuñu cee am benn problème te ñoom ñaan ñi seen loxo da cee wexaat ndax nag ñun bu ñu dee def lii góor bu ñu ci toogoon ni la ñun wax la dañuy tànn lii nag dañuy di wax ni yéen nan ngeen def ba di ko nag ak nan ngeen def ba taxawal bis bi. ci naa ne ñaan ñu suñu ndax ñoom ñoo ñuy jàppale ba mu ne kon dañ leen di delloo waat ñu ko may wax ni Birame alaaj Jaber yàlla moom moo. ñu tax ñu di leen ko xam nga lu seen ñu delloo leen njukkal ñun dañoo leen a amee njukkal war lañu ko delloo ci mënuñu leen koo delloo ñun loolu lañu xam ci yéen moom lañu bëgg ci yéen moo tax ñu pare leen ci kon may nuyuwaat ñëpp di balu ñëpp ak ndax mi ngi guddi te thème bi li ci des dafa xaw a bari asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si sayduna muhammad sangu-sang yi sallallahu alayhi wa ñu ngi ziaré mbolo mi fi tew yépp di len balu àq di len bal àq wéru koor yu ñu nekk di ñaan sunu borom subhanahu wa taala bép woor buñ fi woor ak bép jaamu buñ ko ci jaamu yal na yalla nangu ci barké sayyiduna Muhammad ñu ngi nuyu ñi fi tew ñépp ni metto la waxé rek dafa fekk ni lu ñu yaa def la mais amana ñun tuti nan sax ci bi di jël waaye ne dafa fekk ni yàgg nañ koo def at mu jot kon loo def ren fekkee déwén te muy lu baax mën nga ko continuer defaat ko ndax muy continuer di di baax ñu ngi ziyaare ñëpp di nuyu sunu kilifa sunu sëriñ sunu ndijaay sunu lépp muy sunu oustaz Mor di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér li mu bëgg ci njaboot gi bëgg ko ci diine ji bëgg ko ci tariqa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydouna Muhammad yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def di nuyu tamit sunu wayjur muy yaa jaal Guèye di présidente bi di nuyu Pape Dieye mi nga xam te ne sunu mag la te fakastalunu benn yoon day ñëw sax am programme wala am xalaatam daf may woone ma lan la ñuy def donte man sama âge matewu ko sama xel matewu ko mais cër bi mu nu delloo te dañ ni ku bëgg am cër da ngay joxe cër kon cër boobu nu munu jox yàlla buñ ci gis suñ bopp yàlla buñ ci gis suñ bopp ci barke Seydina Muhammad ñu ngi koy ziyaara bu wax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér ci barke Seydina Muhammad di ñaanal parrain yi ak marraine yi fi teew li nu bëgg ñoo ko xam yàlla neen ko yàlla defal li mettoo la wax dëgg la ndax yaakaar naa ni man bi may ñëw si koñ bi nii grand biraan mi bi muy dëkk fële laa ko xam vieux fay mi mën na ma seede cheikh mi mën na ma seede bëppi bobb ba léegi gis mu doxee wala mu waxee wala mu jëfee naka su dul noonu wala loo xam te ni dañ naan acam ki nga xam ne mooy beneen bi fii laa ko ndax dama ko gis souvent bu conférence bi jotee wala lettre gi mu indi otoom mënoon na koo yóbbante mais moo koy indil boppam ñëw indi ndox te yaakaar naa ni joxe ñam bokk na ci li nga xam ni nii moom la yàlla gën fonk ak mbokk kon ñu leen ñaanal yàlla rek lii nga xamante ni nii def nañ ko tudde leen ko ñu ñaan yàlla fekke déwén ñu tuddewaat leen ko ndax tudde bi li meetoo la wax du alal ndax fii tontol nii lépp lu waay de programme ci jamono bi te muy ànd ak diine yàlla mën na la suturaal dimbali la balaa ñëw lépp sotti kon dañuy ñaan yàlla rek tànk yi ñu doxee ba ñëw fii yàlla na yàlla def xéewal sutura teraanga fajug bàkkaar ci barke Seydina Mohamed ñu delloo waat ko si jàmm ñu ngi jéglu ñu mbooloo mi yëpp di ñaanal ñëpp di ji euh, jéglu tamit mbooloo mi nu jiite ndax ay ndaw lan mënuñu xamuñu fekkewun mais suñu demee ba ñemee taxaw di wax fii dafa am ku nekk suñu ginnaaw te dañ ni feccum liir bu neexee nday jaa ca mbag ya mais Oustaz Mor Fall mooy suñu wëyjur mooy suñu kilifa moom ci ragal yàlla yàlla ko yàlla def ci barke Seydina Mohamed wasalaamu aleykum wa santam euh, di jéggalu nag parce que euh, temps dafa xat temps bi euh, ma am contentement goo xamante ni xawma sax fu ma nu mu toll xam naa fu mu commencé mais xawma fan laay am parce que jëf ji ngeen ma defal rëy na ci man trop tey mayu ma woon sax sama temps ma ñëw waaye fale ko nu mu mën a demee rek danaa bàyyi sama lépp ma ñëw parce que ngor tamit ngor rek moo koy fay ma jiital nag ci nuyoo bi oustaz Mor mi nga xam ne moom mooy suñu kilifa fii waaye tamit di nuyu sama ndijaay ji nga xamante ni man ma sax ndijaay la ca man wala baay muy sëriñ Mamour Gaye wa bi ma dikkee gis ko rek sama xel dafa gën a dal di nuyu mbokk yi fi tóo bi yépp di nuyu sama mbokk mi nga xamante ni mooy sëriñ Birane Gueye di nit ku baax yàlla baaxal ko macha allah mu dëkk ci Madina Fall gi di fi dox ay jéego kon Birane maa ngi lay ziar yow tamit bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay ah, di nuyu nag sama grand bi nga xamante ni mooy Alaaji Xaar Njaay nga xam ne moom ñu ngi xamante ci politique waaye bala ma dikk ci loolu tuuti da ngeen may may ma présenté ñi nga xam ne damaa ànd ak ñoom muy Cheikh Ñaam yi mu ngi dëkkee côté Jumaa ja nekk dakaar dem dikk man ak moom ñu bokk di yëngatu ci wàllu politique waaye ñoo bokk dëkk tamit Medina Fall muy nit ku jàmbaare di nuyu sëriñ Pape fay mii nga xamante ni moom it ndakaaru la nekk di fa yëngatu ak aadama euh, Baan ak sama ndijaay Diop Gaye ak Baye Assane Diop parce que il fallait que ma sant leen ñoom tamit xam nga Sénégal léegi dëkk bi dafa naqaree ànd ak ay nit surtout booy politique amoon doom ba tànk wala yàlla defoon na la yow amoo xaalis kon damay ànd ak ñoom ci ngor te fu ma leen woo jigéen ñi sax dama leen a yeewi ni leen bu leen ñëw parce que xam naa temps bi kër yi taxawaay bi day xat mais dañ ñëwoon ñoom ñëpp dañuy mobiliser wu ñëw man leen ba leen ma def délégation rek ànd ak ñoom kon il faut ma sant leen euh, di wax nag ni bis bi yal na yàlla may ñu fekke ko ay at yu bëree bëree bëree bëri man même bu ma ci doon def dërëm par at sax xeebuma ko parce que rëccuuma ko tamit parce que loo xam ne heure boo ko defee ren bu déwénee di nga sentir ne yokku nga te ku yokk ren ji déwén di dinga xam ndax yokk nga wala yokku woo te defuñu ko ngir puukare wala defuñu ko ngir dara mais dañ koo def ngir li nga xam ne ñoom ñoo ko bokk muy dëkk bi bu dul dara waaye ñun ñoo bokk euh, xaddara bi euh, ñi suñuy ay nawle yu baax a baax a baax yëg ñu ba heure bu jotee ñu euh, informé ñu ñu bàyyi suñu lépp ñëw ci di nuyu waa xadra bi yépp nag mag ak ndaw góor ak jigéen mënuma lim parce que gis naa fi ñu bëree bëree bëree bëri waaye nuyoo googu tamit damay jël nuyoo euh, directeur de cabinet président de la république muy Augustin Tine euh, jottali leen ko ak contentement ci programme bi nga xamante ni tuddee nañu ma ko loolu nañ leen ko jottali bu baax ngeen xam ne kon ñi ko war a yëg ñu bëree bëri yëg nañu ko xanaa di dolli di ñaax Medina Fall rek euh, nañu gën a ànd nañu gën a jàppoo nañu gën a booloo nekk benn parce que li nga xam tamit mënuñu ko comprendre muy Medina Fall presque mën nañu wax soixante-dix mille habitants suñu tasaaroo rek mooy tax lu bëree bëree bëri ñu koy xañ doomi Medina Fall muy dem ci yeneen doomi quartier naam quartier yëpp sax benn la waaye nag bay ci sa wewi tànk kon il faut ñu booloo ñu mën a ànd bokk ndey ak baay jéem a xool li nga xam ni moom mooy développer suñu gox bi ñu ciy àndandoo di ci xàccandoo di ci dóorandoo appel boobu moom faaw dinaa ko lancé parce que kon ko ñun dañuy yëngatu ci wàllu politique te politique dëkk mënta développé te politique amu ci loolu mënta nekk moom da nga ciy nekk di jéem a xool ànd ak nit ñi jéem a xool lan mooy développé seen gox wala ngeen xaar ñeneen jógee ca àll ba dikk utiliser leen jël la ñu war a jël yóbbu ko feneen kon loolu bu jotaay bu mel nii bu amee faaw dinañ ci ñaax. Euh, fàttalikoonte ci xam ne ñun ñoo bokk lépp amul murit amul tiijaan amul xaadir amul laayan Medina Fall la ñu am kon loolu na ci ñëpp bàyyi xel Medina Fall sax moom ñëpp benn lañu waaw ñëpp a ko bokk ñëpp dëkku maam Cheikh la mais ñëpp boo xoolee tey jii murit yeeg tiijaan yeeg ñoo bokk ndey ak baay amul kii murit la kii tiijaan la kii la loolu amu fi kon loolu nañ ko jéem a sàmm bu baax a baax a baax jéem a xool lan mooy développer suñu dëkk ñu ànd ci ñun ñëpp. xaar njaay nag moom dama koy sant bu baax. kon nag njaay loolu dinaa ko bu baax a baax a baax a baax di wax soxna Fowla dénkaat naa la xaar njaay ñu ngeen ko jàppale. ñu ngi nekk ci ginnaawam. bu ma xamoon ci. parce que mën naa leen dafa dëkk Fatick dëkk fii na ni ma xaritoo moom am na ñoo xam ne mën na ma bokk ndax ay bàyyiwul njëkk fii ma xaritoo ñoom noonu. te leen rek moo ko may mooy ak jubam ak dëggoom ak bëggam développement Medina Fall kon loolu dinaa ko témoin yàlla ñu yàlla may ñu fekke ko ay at yu bëree bëree bëree bëri bëri parce que mbir buñ ko sosee nga koy teewee ba mu mat fukki at dama ne loolu sant yàlla la yàlla ñu yàlla may ñu fekke waat ko ay at yu bëri euh, bu ko defee ñu yàlla nangul ñu suñu conférence bi nangul ci ñaan yi nga xamante ni ñu ko ciy def yëpp bu ko defee mu doon gëneel ci gox bi doon gëneel ci dëkk bi waaye doon gëneel ci réew mi ngir ñaanal njiitum réew mi yàlla doon li koo defal jàmm bu amee jàmm rek ñëpp dinañu am jàmm waaye bu ko amul kenn du ko am la maam Abdou Aziz Dabakh doon wax nag daan ni bu ubbee ci gaal gi da ngeen ñaan na yàlla sama amul mucc mu bu leen ñaan boo ubbee ci gaal boo ñaan sa ëmb mucc waaye da ngay ñaan gaal ji mucc ñu ne kon ndax lan Dabakh mu ne bu gaal gi muccee rek sa ëmb dina am kon yal nañu yàlla defal loolu euh, yàlla defal ko jàmm yàlla defal ko xéewal yu saawan baawaan ba nga xamante ni Sénégal yéene jamu ca am ci Sénégal émergence yàlla defal ko lu kawe njortam kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أيها الحفل الكريم فإني أحييكم بتحية فاقت الجبال أبها الثبات وإن ضاق بكم الديار والمرابع ففي سوداء المدامع الفسح المقعد لكم يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس في المقل قلوبنا هي المحل وهي فسيح المقعد وتحية خاصة للنساء البريئات المحسنات بنات حضرة التجارية مع الدائرة الأصفياء في مدينة زادكن الله العافية ورزقا طيبا لكن جميعا وأنتن أساس الحياة ومصدر كل شيء بلا منادى كما يقول العرب كل رجل صالح وراءه امرأة كما أني أود أن أرحب الرعاة الرسميون لهذه الحفلة السيد الحاج جمال جاي وسيدي مسيد إبراهيم جاي وسيدة سخنة فاتواد وأقول لكم حضرتم أهلا ونزلتم شهلا اليوم يومكم والحفلة حفلتكم ولو عرف الحفلة بمن زارها لفرحت واستبشرت أشكر جميع الأساتذة وما إلى هذه ذلك فهذه أدوات لها دور كبير في تربية الأولاد داخل البيت وخارجها ولها تأثير مباشر في الأولاد مع آه، مع تركيز مسلسلات في التلفزيون وهذا يؤدي تغيير سلوك الأولاد وليس ذلك فقط بل يؤدي إلى ضعيف مستواهم في المدرسة وحل من ذلك التعليم شيء من القرآن الكريم منذ صغيرهم وتربيتهم بصدق ممارسته كل يوم أمام الأولاد واعلم أيها الوالد أنت المسؤول الأكبر للأطفال وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيه إلى آخر الحديث ومن واجبك أن تنشئهم من السير على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والمشايخ الأجلال واجتناب المجالس التقوى كما قال شيخ مقدم رضي الله عنه يا أيها الصبيان لا تشتغلوا عن الهدى ومن العلوم استغلوا واستغلوا بالحفظ والتلاوة واجتنبوا مجالس السقاوه واضحا أن كل ما في الولد هو عند والده وعلى الأغلب كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم مولود يولد على فطرة إلى آخر الحديث وأخيرا أشكر مرة أخرى بنات حضرة التجانية مع دائرة أسيا في مدينة الفاء العظيمة أه، والرعاة الرسميون لهذه الحفلة وتحية خاصة الفضيلة الأستاذ مرفان أه، وكي جناو ذلك فقط بل يؤدي إلى ضعيف مستواهم في المدرسة وحل من ذلك التعليم شيء من القرآن الكريم منذ صغيرهم وتربيتهم بصدق ممارسته كل يوم أمام الأولاد واعلم أيها الوالد أنت المسؤول الأكبر للأطفال وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعية إلى آخر الحديث ومن واجبك أن تنشئهم من الصغر على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والمشائخ الأجلاء واتناب المجالس التقاوى كما قال شيخ الخدين رضي الله عنه يا أيها السبيان لا تشتغلوا عن الهدى وبالعلوم استغلوا واستغلوا بالحفظ والتلاوة واجتنبوا مجالس السقاوة واضحا أن كل ما في الولد هو عند والده وعلى الأغلب كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم مولود يولد على فطرة إلى آخر الحديث وأخيرا أشكر مرة أخرى بنات حضرة التجانية مع دائرة الأسياء في مدينة الفال العظيمة آه، والرعاة الرسميون لهذه الحفلة وتحية خاصة الفضيلة الأستاذ مورفال آه، مكي yi ginnaaw سنتي الله خمناني yàlla xam دنكو ni رك ji moom dañ koy talxiis rek maanaam parce que temps bi xoj nañu te waxtu wi itam jot na te wax naa ko ci ci discours bii ma wax thème bi nga xamante ni bii moom lañ choisir di ko pour war koo traiter dafa am solo am solo goo xam ni moom la joxe woon daaw waaye moom lañ continuer waat di ko joxe waat ren ndax am goo xamante ne am na ko solo lan mooy solo thème bi mu ni crise bi nga xamante ni bii xol yi ñoo ñoo crise maanaam jamono bi dafa crise xol yi ngir xol yi yàqu. waye lolou du suñu domaine inshallah taala su oustaz ñewé rek dana ci dugg ñu ni yéen mbolo mi fi tew yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen dalal li nga xam ne moy ci sunu biiru xol mani su fekke pak bi ñu leen dalal wala kër yi ñu leen dalal su fekke dafa xat ci yéen amna lu gëna yaatu lolou moy xol te ñu ngi leen dalal ci sunu biiru xol ndax wax nañ ci xadisul qudsi ni yàlla xajul fenn ci doomu aadama fudul ci xolam kon ñun ñu ngi leen di dalal ci suñu biiri xol di beral nuyoo jigéen ñi nga xam ni ñooy jigéenu xadaratu tijaaniya ànd ko ak seen ay doom daayiratul asfiya di wax ni yàlla na yàlla barkeel leen yàlla dolli leen xéewal dolli leen sutura ndax yéen jigéen ma wax ni wa antunna asaasul xayaa bila munazaa jigéen damay wax ni su aduna amé solo jigen motax mu am solo parce que ñom ñoo defar société bi lolo tax arab yi di wax ni kullu rajulin salih rek waraahu imra neena bépp way bo gis ñu dénk ko mission mo xam mission ba yenent la mo xam nguur la mo xam lu mu mën doon neena bu mission ba réussir rek bo xolé ci ginaawam gis nga jigen ju bax ju nek ci wetam diko dimbali kon jigen yi ñi ngi leen di sante bu bax di leen ziar di leen dalal waaye itam di sant itam ñi nga xam ni ñoom lañ darajaalee bis bii ñi jëloon kàddu ñëpp wax nañ ko daanaka jërul ñu ci jaaraat muy alxaaji Jibeel Dieng ak sunu kilifa gi di Pape Birane Gueye ak soxna Fatou Wade ñu leen di dalal bu baax ci jotaay bii من وأقول لكم حللتم أهلا ونزلتم شهلا اليوم يومكم والحفلة حفلتكم بس بيتاي سين بسلا وجتاي بي سين جتاي لا من مني ولو عرف الحفلة بمن زارها لا بشرك جتاي بي بخمون تاي نيكو غانسي اك نين كو جتاي بي تي بوبام موم موي مودي بك ناخ سونو ياي سخنا تولا واخ نكو ليغي نيوم با دارا دول دارا لا وون ñu and ak daayira bi kon tey yaakaar naa li ma wax ni bis bi tey bu xamoon ñi ñu ko dara jaal bis bi ci boobu mooy njëkk a bég ndax yeeyoon nañ ko ñuy sant itam mbooleem ustaas yi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi yëpp suñu limee dañuy juum mais ustaas yëpp ñu ngi leen di sant ba mën a tarbiya xale yi pour ñu am e-, stable parce que nit ki su yaruwul rek du mën a stable ci àddunaam loolu ñëpp xam nañ ko so amul tarbiya amo yar do stable parce que chaque jour rek yang ci ay problème te ku nek ci problème stable mu ne nak kon naka lañuy def ba meuna fexe ba yar ndaw ñi yakarna lolu loolu insha allah taala suñu fi toogee légui oustad dinañu indi solution bi naka lañu meuna def ba meuna yar ndaw ñi na nak ci jamono bi nga xamanteni mom lañuy dund ak jumtuwaay yi ñi dundé mani li annana fi al haja tilmaasa ila mawduu li akuna al mujtama fi alzimatil xulqiya mu ne ma ne ñun tey dañoo am aajo bu rëy ci sunu thème bii ndax lan ndax population bi nekk gu ñu nekk ci crise jamono bi yàqu bu mu yàqu looloo tax tey ñun ñu am aajo ci sunu thème bii pour fas yéene koo jox oustaz mu dem ñu ko tasal ma ne nag kon dafa war ci bépp wuy jur muy góor muy jigéen responsable responsabilité la ci yow nga yar sa njabot lolo tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle ko yàlla wax ko ci alquranul karim ndax mom la yàlla yoni ci ummatul islam bi yeb mu la bu la waxee lan moy tarbiya nak ci tarbiyatul awlad bil wasati wal istiqlal fa hada yaani an rabbi al awlad ma al muraati dhuruf alladhi yaishu fi al abna moy li ma wax sank ndaka la ñuy mën a ba yar xale yi moment bi jamono bi fi mu toll ak jumtuwaay yi nga xam te moom la ñuy jëfandikoo ma cité ci ñaar rek lu mel ni whatsapp ak facebook ndaka la nga mën a yaree xale bi mu yaru dikk ànd ak jamono. waaye mën na ànd ak xale bi tey mën a am tarbiya pour mën a jàng waaye nag mu ni loolu solution bi nga xamante ni moo ci tane te gën ci mooy nga fexe xale bi bi mu nekk tout tànk nga fexe dugal ko mu jàng alquran loolu boo ko defee yaakaar naa incha allah mën nga am toute solution. waye tam nga fexe tam nga yar ko bis sidiqi wal amana yar ko ci deug parce que tamit dañuy wax ni xale motax mom la wax sank ci hadith bi ni kullu mawludun ala al fitra yonent bee ko wax neena ku judd rek da nga judd melni ni ver papier bo xam dafa vierge amo dara ku judd yak papier vierge ci yeena yam amo dara imma ala abawaay yu hawidaan aw yu lu ne ci yow rek sa wayjur moko def ci yow kon lolu wayjur ñom am nañ ci responsabilité bu mag motax man len kon solution bi nak moy ñu fexe duggal ndaw ñi ci alquran lool dañ koy souligner rek pour wax len thème bi nga xamanteni mom la oustaz bëgg waxtané solution bi nga xamanteni bi mom la fasiyene indi pour nit ñi mëna a ci njub yeen tibi sallallahu alayhi wasallam wax batay ci hadith ni kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iy kon waajur juri ñom moy responsable bu mu leen wax yeen tibi neena ëlëk ëllëg yowmal xiyaam yàlla dina la taaj ci sa kanamu njabot laaj lako ba hadith bi jeex mu itam dafa war ci xale bi itam nga fexe yar ko ci bëgg yàlla ak bëgg yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam waaye itam ci bëgg itam serigne su bax ci ndax ñoo suñuy wasila parce que nit limu li nga bëgg mu doon ko ëlëk ci loolu nga koy yar parce que ñun damay gis démb rek xaw démb lawon 11 mai xaw bo gisé ci Facebook bi wala WhatsApp bi ñuy def ay Bob mar la ñun ñoo duñu suñu référence xale dañ leena wara yar ci référence yi nekk ci réew mi ñu fexe xam leen bëgg leen. Bob Marley ñun lan lañu mëna jariñ suñu référence amna amna ñu amna ñu mëna référence ci mom mais pas ñun mais lolu ci ñun ñun way juri ci am responsabilité bu reey reey reey pour ya ci xalé yi yow su fekke sëriñ bi nga yaakar ci ngay fexé bi nga xalé bi di tout tank nga fexé ko ci yar nampatal ko ci xamal ko ko man fi la jëm ci li la bëgg lolu bok na ci solution bi nga xamanteni na tamit nit ñi waye tamit di kuy tam jotaayu texe day moy li serigne touba radiyallahu anhu waxoon laa tujaalisu majaalis saxaawa majaalis saxaawa nag buñ ko waxe nak bari na de bismillahi arrahmani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain xamna naa waxtu yi jeex na way jàpp na ni li fi wax limay wax du ko mat te du ko ëpp solo yarant bi non taallamu min al ansab ma tasiluna bihi arhamakum na ngeen jema xam li dox sen digeunte ba tax bu ngeen waree ànd ngeen mën a ànd kon jàpp naa ni bu ñu toogan ku jóg rek wax li nga séqam mbooloo mi lépp di lu rafet yàlla dinañ fay ndax yàlla du fay ay acte posé li ngay def jëmmi jëf ci yàlla du ko fay waaye xol bi di ko jëf moom la yàllay fay bu ko defee jàpp naa ni li fi baax lépp ci jataay bi su ma ko waxee jant so xam naa ñi ñu xis présenté moom ah dama leen di bàyyi ak ñi leen présenté rek te ñi nga xam ni xëy na sama côté lañ ma présenté leen mu mel ni ren bis bu spécial la bu amuk jagle ndax ñaari maire yi nga gis ñu doon samay day daara ca Dakar lu ne defal nañ lu ne te kenn ku ne yaa ngi ànd ak sa doom Alaaji Yuusu Jóob mii toog yaayam a nekk ndële Ismaayla mii toog yaayam a ngi nii ki ñu joxoon daaw mu nekk marraine bi yaayam a ngi noonu toog muy soxna Mbéri Sàll daara bi ma yoroon Dakar moom moo koy jàngale léegi bii woon na ma ñetti yoon mané ko yow baal naa la togal ndogul ina ñor te neex rek mais li ci dess mom jéggal na la ko defee kon ñom ci ñom la bok ñomit ci man lañ bok. fu ma nekk la fa nekkal waye fu ñu it eh, man lañ fa nekkal bariwul fi ma lima ma ak ñom bari wul ma nek ci bari jaar na fu bari mais lima ma ak ñom bari wul ma jaar ci

ren bi conférence bi jub see may dem Dakar ñu yóbbante ko ma dem fekk mu dem Paris ñoom ñu yàkkamti ni ah xam naa ni comme kii la nañ ko defar bi mu ñëwee ndeysaan woo na ma ni ma même. ministre ba de bois la ma nga yor dénkam di ko liggéey lu rafet charpentier ba wala kii liggéey ci wàllu weñ mu ngaa weñam di liggéey mais moo àllim jàngalekat bi muy éducateur bi mu ngi ànd ak couche. bi gën a sensible wala fi am mooy mbooloo mi gën a sensible ci addina bi mooy gone yi nga xam ni ñooy doon lu daray doon ëllëg ñoo koy kon nag jàpp naa ni bu bantaxal damay leen bantaxam bu leneen yàqoo leneen am na waaye bu xale yi yàqoo addina bi loolu moo tax Ahmed Shawqi doon wax ni وإنما الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا نانا إياي يجيني ينقر نعري صحنا يباقي أجا نعي يوي جوك أك أجا خليفال دفنا نبين كونفرانس تي أنسيت الليباني دكاريا بيوفي نتفرم مدرسة loolu ko wax diggante doom ah, woon na tey naa ni jour ne jugement la dañ ciy kon yelloon na jàpp ci sa loxo doom indaale ko mu dégg di wax bu demee xam yaay kan waaye bu demee xam kii mooy dama mas a gis sëñ Maodo si moom doom ji ñëw mu ne Cheikh Cheikh El Hadj Malick mu ngi lay ziar mu ne mu ngi ziar di ziar ñoo xam ne ay njaboot moo leen ñu ko jural ay njaboot parce que yaa ngi def si ñoom ay aada te yoo xam ñoom ak lu ñu rëy seen wàcc war la def ba wàcc ci seen kanam ko dem ba ki nga xam ci yow ko yàlla jaarale nga wàcc ci kanam koy rëy ndax li nga def si moom defaloo kenn ak yooyu yëpp bu ko defee ba léegi jàmm yàlla jàpp naa ne nag xëy na bu fekkee ñenn ñi ñoo koy def ñi ci des defuñ ko ñi ci des war nañ leen jàngal ñii def yar bu baax bi fan la ñu jaar ak fan méthode lañ jël pour yar bu baax ñi ci des jël mu ne ko kon fi ab bi gën a sensible ci askan wi moom la ñu teg ci sa loxo yow éducateur bi asigar tuhar ay gone yu set wicc rek parce que yàlla ma wax ni fitrat allahi allati fatara nnaas alayhi salaam tuhar ala bara ñu set wicc rek psychologue ba noonu noonu nañ mën a jox ay xale bi nga ma joxee xale yu bari dinaa ci defar dof defar ci sàcc defar ci wëliw defar ci lii defar ci lii day wane ni li yàlla wax ni fitratallahi allati fatara nnaas moo am xale matière brute la xaam la noo ko bëggee loolu lay door yonent ba noon kullu mawludin yuulad ala fitrah nasra ku judd ku ne da ngaa judd ci mbaax ak sell ñi la meññ nag looy doon ñoo la koy yonent bi noonu na seen xale yi na ngeen def ci ñoom ñetti jikko addibu awlaadakum ala salaasi xisaal xubbu nabiyikum xubbu aali baytihi wa tilawatu alquran ministre ba dëpp ma nga yor dénkam di ko liggéey lu rafet charpentier ba wala kii liggéey ci wàllu weñ mu nga ak weñam di liggéey mais moo àllim jàngalekat bi muy éducateur bi mu ngi ànd ak couche bi gën a sensible wala fi mooy mbooloo mi gën a sensible ci addina bi mooy gone yi nga xam ni ñooy doon lu daray doon ëllëg ñoo kon nag jàpp naa ni bu banta fa damay leen banta am bu leneen yàqoo leneen am na waaye bu xale yi yàqoo àddina tukki loolu moo tax Ahmed Shawqi doon wax ni wa innama al ummu madrasatun iza a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyiban nee na yaay jigéen ñi yéen a ngoor ñaari soxna yu baax yii Adja Ndeye Yoy Diop ak uh, Adja Khady def nañu benn conférence ci institut libanais Dakar yëpp ñëw fa ñu defal modéral ñu doon wax diggante doom ak wuy juróom ma ne ah jaadu woon na tey de jàpp naa ni jour la boo xam ne jugement la dañ ciy kon yelloon na ku ñëw nga jàpp ci sa indaale mu dégg li maam alfasi ibnu abdul aziz al xalifa di wax bu demee xam yaay kan waaye bu demee xam kii mooy nekki kan daa ma sa gis sëñ si moom doom ji ñëw mu ne Cheikh Cheikh Alhaji Malick mu ngi lay ziar mu ne mu ñoo xam ne ay njabooti boppam moo leen dund du sax ñu ko jural ay njabooti boppam mu ngi ziar parce que yaa ngi def ci ñoom ay aada te yoo xam ne ñoom ak lu ñu rëy rëy rëy rëy rëy seen wàcc war na def ba wàcc ci seen kanam ko. xam ne ci yow la ko yàlla jaarale nga wàcc ci kanam koy rëy ndax li nga def ci moom defuloo kenn ak yooyu yëpp bu defee ba léegi jaamu yàlla jàpp naa ne nag xëy na bu fekkee ñenn ñi ñoo koy def ñi ci des defuñ ko ñi ci des war nañ leen jàngal ñii def yar bu baax bi fan la ñu jaar ak fan méthode lañ jël pour yar bu baax ñi ci des jël mu ne ko kon fia bi gën a sensible ci askan yi moom la ñu teg ci sa loxo yow éducateur bi asigar tuhar ay gone yu set wicc lañ parce que yàlla moo wax ni fitrat allahi allati fatara nnaas alayhi salaam tuhar ala bara ñu set wicc lañ psychologue ba noonu noonu nañ mën a jox ay xale bi nga ma joxee xale yu bari dinaa ci defar dof defar ci sàcc defar ci wëliw defar ci lii defar ci lii day wane ni li yàlla wax ni fitrat allahi allati fatara nnaas moo am xale matière brute la xaam la door yonent ba noon kullu mawludin yulad fitra أو ينصر كنت كنا إيه؟ لا جد تيمبا إكسل نيرا مين نات لوي دون يوروبي يانت بين أمنا سين خلي نعين تفسيرهم يأتي جيبو أدبو أورادكم على ثلاث حصار حب نبيكم حب آل بيته وتلاوة القرآن نعم إبتة يرسل خليج يات صب قيام النبي صلى الله عليه وسلم صب قيام صلى الله عليه وسلم وليس نفع على حب بلا عمل متابعا سنة المختار تحترمي ولا تغتني وليس نفع على bis bi jaral na leen moom lu bari joxem xaalis meeg xottil xale yeeg xotti yére yeeg natt yeeg togg yeeg lépp lilladina axsanu alxusna wa ziyada lilladina axsanu alxusna wa ziyada yàlla ko wax te dafa dellu gannaaw ñi nga xam ni dañuy def lu baax dinañ am lu baax yokkal ndolleent jigéen man asdiqaa'uhum ñii ñan ñan xarit lañ am nee question yi fonga la waye bu la yalla nato ba xamoo ko sa di yàgg Axmad daa tay gis ki moom lu nekkul ci yow de bu la yalla nato ba booy nelaw yow dina fekk sa doom mo xamoo di jël par ben ganaar di yéemu waaye yow li ngay wax ci ginaar gi wax ko ci mburu mi foofu ginaar gi yàpp ci bu ko defee xëy na ki ma bëgg a wax waxoon naa fi sàmb benn faatiha bu ñu jàng ci borom métit mu teqale ko ak métit wax waaw ñu ne ah man de tànn naa ma ah, de ah fële nii rek la yàlla miy tege jàngoro fii kat mooy indi yërmande fee ku jàpp ne nag waa ji li mu la mënal mooy jàng Faatiha sa bët sa bëñ mbaa sa bopp mbaa sa bët waaye mën na ko fii mënu ko fële yow doo tumaale yàlla dama ko wax carrément ne dugub bi mu mel fii da lay ñii seen Fatiha di jëriñ fii bu ñu demee fet ku leen woon gannaaw bu ñu ko yónnee moom yaa layta qawmi ya'lamuun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin ya koy wax tax ñu ko a كفي يا فاتحة كفي كفي نتي يوم بتنك على قلب متعرض على قلب متعرض المالئة لكل متعرض من البور والأواني ويوم المالعة لكل غير متعرض من البور والأواني لطاو بي باري باري باري باري نك لو دب دو ام نك لول موم نك بايي waxon naa sàmm am na ab sufiyaan bi imam Shafii sax ko bind nee na yàlla bëtam du ko teg lu dul ci xoli nit yàlla boo bëggee bëtub yàlla tege ci sa kaw demal nga leemu ci biir xolu nit yàlla te mooy fexee nitu yàlla gi considéré nitu yàlla gi considéré wu la parce que da koy jox xaalis considéré wu la parce que da ngaa rafet considéré wu la parce que da ngaa am ndox ba tànk dafa la considéré parce que action maanaam li muy def mu tax koo jóg yaa ci biir nit dina la jur te doo nekk ci xolam nit di nekk dina nekk sa sëriñ te nekk ci xolam parce que mënul diriger moom yàllaa koy orienté yàllaa koy orienté almartaba laa tusamih yow sa jëf ci moom moo lay jël waaye du yéene moo lay jël borom la laysa alayka hudaahum ña ko yàlla doon wax ni yoroo seenu ngëm yéene nga lu baax nag waaye seenu baax yoroo ko yàllaa kon yéene woon na leen ñu waaye ndekete lay tax ñu baax mooy ñoom ñu wëlbati ko jox seen moo tax mu jariñ keroog bi ma demee Noto ci ren ci journée bi mi woon ma sax jaarale ma ci benn gudd bu sew ni ma kaay nga jaar fa nga egg ma ni ma kaay ànd ak presse ma ma ànd ak presse naa bàyyi ba egg ci moom bi ñu demee waxtaan bi waxtaan bi waxtaan bi yàlla dogal na keroog ay gani magistrat yu jóge extérieur ay gouverneur ak préfet bu kenn xamul ñoo fa dajale ba ñëwee ba ci moom maanaam moom lu bari dal su fa ñëw rek nit ñi ñee ñëpp xool ko ba leen ci moom nit yàlla tiitaange ji ma tiit ah, man yaa man naa problème parce que taxal nañ ma man nag ma jëlee kàpp nee naa leen sëñ Mansour day dëgg la ñu jël ñëpp ñee sëñ Mansour sëñ Mansour waaye moom rek la sëñ Mansour yor te tey jii jëlee na ci sëñ Mansour loo xam ni ah, ku ko fi dëkk xam yaakaaroon na pour bañ rek tuumaal ñeneen ñi ndax bu ma nee amu fi xëy na ah waaw Fane yow ma boolee te lànd nga. waaw li tax ma ne la amul. Ah. moo gën ci yàlla. Hmm. heure bii. Hmm. mu ne ma ñaar fukki fan ak juróom-benn moo ma dese ci kaw suuf. Hmm. mu gën ci yàlla ne ma li ñëpp soxla woon ci man jox naa la. jeex kon. te dama koy fekk. kon. Euh, ma ne ma so yow yaa koy wane. jeex na te wane ko parce que li nga xam ne loolu nit ku amul wéeruwaay du ko am bon. Euh, léegi léegi de la ma fa def mat na milliard. ci milliard boo xam ne dëppoo kees jaayoo dara. président woo na ma ñetti yoon pale ma bañ. jeex ndax li tax ma bañ. Ah. mooy. damay bañ ëllëg ndaw laa te it sëñ Mansour am na lu ma defal mhm. alal jaa ngi ñëw mhm. ëllëg lu ma su ma recevoir ñu ne la ma la ma am mhm. pale laa ko jël loolu man te pale képp ku fa dugg lu ñu la jox alal réew mi léegi ma ne leen nag du mu mel nga sëñ Mansour ko foog ko foog nañu bëri te tabarakallah ma am gannaaw mu ko comme ni ko waxee naa ne nag da koy wax ci kanamu Mame Malick Sy doo ko sëñ Mansour di ko wax ci kanamu Serigne Cheikh Diagne Sy bu fekkee am nga fu mu koy daawee wax foofu la koy daawee wax. ñooñu koy dëggal. te ñooñu dañ koy dëggal te am na ci loo xam ne mi ngi ci cassette yi nit ñaa ngi koy teg ci télé yi ñu gën xamul donc nit ku baax la daaw jee ña fa dem dañ ngeen ma téléphone woon rek kon jàpp naa ni nit ku baax la waxoon moto gis na naa ay nena ngi ay nena ngi ay nena ngi ay nena ngi ba jant so nga fanaane fan dee du jàmm ay nena ngi ay nena ngi ay nena ngi ba mu timis jot nga naa damay reere am na loo xam ne da koy jël rek jariñoo ku ba ko day mo ci jamono da ngay seet lam man ci yow nga def loko ko ci yow su ko defee loolu moom la do wax ci mbiram nit ku baax comme jant baa ngi nag rawam ma te ñu léegi ma tax sa te it waxtu wi yaatu na way bu soye ba baam xongo da ngay dal di dugg ci benen waxtu moo tax dinaa ko baye mu del karbu ma daw julli te ñew ndax ñepp julli nañ yaakaar naa waaye daal bu dajee moom ci jamono nit ku baax fajtabeehu rabbuhu fa jaalahu min as-saalihiina inna allaha stafaa ay boobu mu ngi ubbeewu mooy tànn nit def ci ku jàpp ni nit mënu la wàll mbaax na mosoo boyal ak fu ku jël benn xar kepp tàbbal ko ci fourne foog këriñ yu mag jàpp ko ci kawam jàkkaarloo ko ngelaw li ah bu moytuwul xaal këriñ dana soppaliku xal yëf yi noonu la mel rek àndal ku baax baax bëggal ku baax baax ñeel ku baax ñeexal ku baax ci baax loolu rek moo fi nekk bu kon xam naa ni waxtaan bi jéew ku won waaye comme nit ñi namm ko bëgg nañ ko baax ah dañ leen di bàyyi rek ci moom waaye daal ba léegi rek jàpp naa ne li ma a wax lépp ci tan bii waxuma ko te wax xam naa ko dañ koy far lax ci point yi ñu wax xam naa daal ndaw si daal bi xanaa yëfu circulaire bi Omar ibn Khattab amirul muminina day bañ ko yokk am soo di ko jaay de ma ne ko Omar bu ko yegg yaay yaay wax loolu eh ma war a joxe mon exemple Omar bu ko yegg ma ne ah in kaana amirul muminina لا يرانا فرب amirul muminina yarana su fekkee amirul muminina duñu gis boroom amirul muminina moom ay bëtam teggiwul ci ñun ki bind amirul muminina Omar ak yi muy garaaw yépp ki ko bind moom dinañu gis doom jëy wax loolu yaay moo tax am na loo xam ni doom bu yàlla bind rek bind na ci moom ay force ay kattan yoo xam ne day tëdd jëm ci baax mais soo neutraliser force yooyu da ngaa kop da ngaa toj da ngaa waane rey na bu defee sëñ Habib kooku mooy soxna Tabara Dem doomu xalif général xalifa alxaaji Ibrahima Dem buy soo seex dem ngi def fii ci Ngent semaine bee ñu passé rek 27 seen seen kër ñoo doon gàmm Soxna ñu ngi sant ci jaraay bi waaw jéy gaa ñi di nee nañu nga nga wax bi mu taal sax bi parce que taal sax moom ku xam na fu mu jógee. Ah. jàpp naa ni te jàpp naa ni seddu na seddu na ca soxna kon nag. xale bi toog fii léegi soxna ko war a def gàmmu gi 27 gi dégg naa ba xam jàng Fatiha boo xam ne bi ñu jógee ci tànn bi ñibbi ñi ma àndaloon nee naa leen Fatiha bii sama du ma ko jàng sama moom. man maa ngi nii dama am benn. benn waay bi ko dab ma ne ma sëñ ba nee na gàmmu ren bi ku fi dagam sa tànk say soxla di ko yokk te it xam naa ni fi mu toll xëy na lu bare ci lu muy def moom yàlla bi ba léegi nag nit ñu baax ñi am nañ waaye ndax ku wër ku baax am na c'est la question bu defee kon nag maa ngi ñëw daw tuuti te dellusi bu defee ñu jox la kii bi nga waxtaan ak mbooloo mi. dama am kàddu yu may sànni tuuti rek. namm nañu la. kooku mooy Abdourahmane Jege. ñu ngi ñu ngi. waaw yéen lépp man léegi wàllu ma rek kon moom mooy gën a ci laay gën a nekk dimbali ma rek ci laay gën a nekk wàllu ma kenn. maa la ko ñaan. ñii dañoo mënut a wax ñii mënuñoo wax yàlla xam na loolu mënuñoo jot. ah ñu ngi jégalu. waaye wax dëgg yàlla moom day wax. waaw sax bàyyi kon ma wax ak moom. waxal waxal waxal rek waxal rek waxal ko sax ngir yàlla dinañ ko. ah salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw sëñ Habib mu ngi nuyu ñëpp ci nuyoo bi yow mii sant Ndiéguène. te mu ngi nii xarala waa Jokalante xaalis ma doon déglu yëpp. ba ca xalifa ba. ba ca xalifa ba. yow la ñu jiital ci nuyoo bi. mu ngi nuyoo foofu ca xarala ba waaye ma teewoon leen. di ci teg suñu bàyyi bu tedd bi. di ci teg suñu bàyyi bu tedd bi. bàyyi Badara jiite. di Magu Seydil Hadji Malick. di. 14. Wow. Wow. يا يمكن في الكرسي لحاج مالك تيوان في الكرسي لحاج مالك تيوان في الكرسي لحاج احمد برد وعين تيوان في الحاج احمد برد نحن محضر الحاج محمد تيوان في الكرسي احمد فوتي وعين تيوان في الكرسي احمد فوتي وعين تيوان في الكرسي احمد شيخ القديم وعين تيوان في مام شيخ القديم مام لي مام مام لي مام لي مام كنت نعصان مام رجب maam Ablaye Niass Serigne xam na ni moom dafa sawar di ñëw fii ndax moom moo leen bëggal boppam yàlla xam na ak bii mu des ñaar waaye fii muy def ñaar yi muy def daf ko leen yéene alhamdulilah ñun dañu ko yéene si xolam yàlla yàlla naa ñu lépp bàyyi yéene ci bi saa salaam li imam wax sànq rek li ustaz ma faal te nit yàlla ak nit àll la duñu benn yàlla Cheikh Saliou Mbacke radiyallahu taala. Cheikh dafa am am benn bis. fan yu néew nii rek. fan boo xam moom tamit moo ko yaral boppam moom Cheikh Saliou. mu nekk ca daara mu nekk ja. ca mu ne bis euh, Serigne mu ne euh, euh, ja. ca mu gëj fa Touba. xam naa ne ma nga Touba. xam naa daara ji benn la ci daaraan yi. xam naa ne daara ji sax benn la ci daaraan yi. mu gëj ko lool. mu gëj ko lool. mu ñëwaat nag ca daara ja. mu ñëwaat rek ñu si ca daara ja. ñu ne taalibe yi ñu ndaw ñu daal di euh, def seen délégation dem ci sëñ Saliou. bu rëy taalibe yi ñu ndaw ñi def seen délégation dem sëñ Saliou. ni ko Mbàkke ñun de dañ laa mere. ni ko Mbàkke ñun de dañ laa mere. ñu ne leen ah ëpp naa wax. ñu ne mu ne leen ah loolu de ëpp naa wax. lu tax ngeen mere. lu waral ngeen mere nekkee ci ne comme nag boo nekkee ci daara ji. daara ji day xéwale. daara ji day xéwale. waaye Saalum suñ Saalum commencé jooy. di jooy. nee na ndongo yi. nee na ndongo jaaxle. ñu ñaan naa ko ndigal pour jege si ko. ñu ko laaj ko ni ko mbàkke lu xew. ñoom seen xol dafa neexul ci man. mu yi nag ñoo ne seen xol neexul ci man. ngi loru. ndax ñoo ngi loru. ndax ñu ngi ci géej. ndax ci géej. léegi mu leen koy tuubalee. li ñaar yu mag. mooy xool leen ci nag yi ñaar yu mag. bu fekkee doyul tamit ngeen jël yeneen nag. bu fekkee doyul ngeen doole rek ba mu doy. ma tuubalee leen ko ma tuubalee leen ko. ngeen baxalal leen ko ngeen baxalal leen ko. bañ cee def sax dawli. def bañ cee sax def dawli. def ko ba nga xam ne boo yëgatee mu wat. def ko nga xamante ne koy toog ba nga xamante ne boo yëgatee rek mu wat. ñu teg la ko ñetti fan. ñu teg la ko ñetti fan nag. ñu leen ko defal yi dox. ma tuubalee leen ko. buñ paree rek. donc yi mu woolu waa ndongo yi mu ñëw ñi ko marqué gën nañ ñu. ñu ne ñu gis mu jël kaalaam bu weex bi daal di ko teg ci gémmiñ gi. ñu gis ñu jël kaalaam bu weex bi def ko ci gémmiñ gi. daal di muuy daal di muuy. Ah, man de nii rek laa ko bëgg. daal di ah lii de rek laa ko bëgg. Ah, maa ngi tuub de maa ngi tuub de di leen tuubal ba si kanam yàlla. sëñ Saliou fi mu yeggoon ci dimanche. sëñ Saliou Mbacke ak ni mu doyoon ci yàlla. su mu yeggoon ci yàlla. bu demee bay tuubal nga xam ni bàyyi na xel yàlla te am na teg ci yàlla loolu Sénégal fii loolu la ñu xam li ñu gëm ñun nit yàlla lu lay yàlla mën may na ko nit yàlla am na nit yàlla yoo xam ne yàlla may na leen loo xam ne rus nañ koo wax doomu aadama yi di ko dégg ñi am sikki saak ñi am sikki saak seen xol loolu du ci am ndax am na yoo xam ne ñoom ñu ngi koy def wala yàlla may na leen ko xel mënu ca tege ndax Cheikh Fallou Mbacké radiyallahu taala anhu dafa am bis benn waay réer le fas ñëw seet si ko mu ne ko Mbacké sama fas dafa réer. mu ne ko sama fas dafa réer. dañ ko sàcc bi. dañ koo sàcc bi fas bi dañ koo sàcc bi. sëñ Fall ne ko naanal ci lay dur bi. sëñ Fall ne ko naanal ci lay dur bi. mu ne ko Mbacke man feebaruma. mu ne ko Mbacke man feebaruma. sama fas laa wax ni moom lañ sàcc bi. mu ne ko naanal ci lay dur bi. mu ne ko sama biir métti wu de. dama ne Mbacke fas ba laa wax moom moo. mu ne ko naanal ci kon waaye yow naanal waaye tabaay ci kaw mu naan toog diir diir ba commencé sa ginnaaw ni Touba mel ni melu ko. ni Touba mel ni melu ko. mu dem di suturlu. mu dem di suturlu. ka sàcc ka sàcc fas ba. ànd benn xaritam. ànd ak benn xaritam. di teggi Touba. di teggi fas diw bële. bii laa ko sàcc. maa ngi ko yeew kër mu di suturlu di leen di. mu dégg ga. mu dégg kàddu ga. daal sa fas yéewi fas ga indi ko yow sëñ Fallou ni sëñ Fallou sëñ fas bi feeñ na sëñ Fallou ne ko lay du gaaw lay bu doon woo lay du feeñ waay waaw léegi loolu njëgën loolu njëgën loolu borom bi moo ko mën a. loolu ku jublu boromam rek moo ko mën. ndax loolu kat. ndax loolu. moom sëñ Fallou. sëñ Fallou. jubóo naa. jubóo naa ki organiser loolu. ki organiser loolu. ndax itam. ndax. waa ji. waa ji mënoon na faa bañ a jaar. mënoon na fa jaar itam. mënoon na fa jaar it. te du wax. te du wax. mënoon na fa jaar it. mënoon na fa jaar it. wax leneen. wax leneen. waaye mu wax waxu fas. waaye mu wax waxu fas. loolu. loolu. jubóo boromam rek moo mën loolu. te nag. nga xam ne ci jamono bii. ñi nga xamante ni ñoo nekk ci jamono ji. ñi ngi nit yàlla yi ñi ngi jiital nit yàlla yi. li ñu bëgg ñoom. li ñu bëgg ñoom. duñ ko am mukk. billaahi billaahi wallaahi tallaahi ñoom ñaar ñu ngi dégg gis yàlla gis yeneen ci ñu koy weddi moom toog na si sa taalu maam alxaaj Mouhamed Ndieguene alxaaj Mouhamed Ndieguene billaahi wallaahi wallaahi mu tàllal baaraam ñu xool leen yeneen ci bi moo ngi nii salaam ak Cheikh Tidiane Chérif ñooñu yàlla may ñëpp gis nañ kon nag. kon loolu. loolu. suñ koy weddi ñaata yoon. ñaata yoon. na seexal xadim. na seexul xadim. wax ci bayitam. wax ci bayitam. ñu gis na yeneen ñu gis na yeneen ci. ñaata yoon. ñaata yoon. na seexu tijaan wax ni. wax ni gis na yeneen ci. Euh, Seydou Baraw Mbale. ca Mbour. Ahmed Baraw. Thierno Ahmed Baraw. Thierno Ahmed Baraw ca Mbour. ñëw na. ñëw na di ziar si Seydou. di ziar teg Seydou Hadj Malick. yàlla talaa mu ñëwee. mu ngi gis ñaari loxo. mu ñëw def ah. ñaari loxo. ñu ngi si wetu Seydou Hadj Malick. dinañ defaat nii. man ña. am na ñu ko ne. Maodo ngi nii. Seydou Hadj Malick ko noppi. Seydou Hadj Malick mi mag ma noppi. kii xam na li muy def. naka boobu. naka boobu yeneen ci bi la doon nuyu noonu ak Cheikh Tidiane doogu nuyu Seydou Hadj Malick. gis yeneen ci bi. gis yeneen ci bi. loolu boo ko gisul. loolu boo ko gisul. loolu gisuma ko loolu gisul mais gisuma ko. waaye bul wax ne kenn gisul. mënuma ko mënuma ko. xaw ma ko xaw ma ko. wóoru ma moo gën a wóor kenn mënu ko kenn xamu ko wóoru loolu kenn ko def jullit bu maanu lu wax loolu te nit yàlla yi tëdd Sénégal ak ci àdduna bi ku taxaw ñu ne bi ñuy ay jullit yow moo nee yàlla jullit billaahi wallaahi wallaahi man ku ma tegal kaamil moo waat ci yàlla Malick alxaaj Malick Serigne Touba maam Limaam maam Boukounta Alaaji Abdoulaye Niass alxaaj Ahmad Bamba ak ñeneen ñu mel ni ñoom kenn gënu leen a bëgg Yonent bi salaay salaam moom mën na waat loolu am na ndax Yonent bi jaral na leen lu ne Alaaji Haadi Touré. Alaaji Haadi Touré. radiyallaahu taala. mu ne. man nag. man. du ma ne. du ma nelaw. waaye man de. waaye ba muy nelaw moom xaw. ndax bu xëyee. ba jant so ba jant so ñu lii ci dox ñu taxawal ko ñu julli timis mu naafile mu naafile wasifa ñu julli gee mu nekk di naafila ba fajar mu julli fajar wasifa ñëw jàngale waat continué ko mu ne moom daal moom ba muy nelaw daal la xam waxul nag du nelaw neewul nag du nelaw waaye daal heure ba muy nelaw la xam loolu mooy màndu. loolu mooy màndu. sa maam. alxaaji Mouhamed Ndiaye. radiyallaahu taala man. man waxoon na ma. waxoon na ko. juróomi yëf juróomi yëf. juróomi yëf yi gis naa ko. juróomi yëf yow yee gis na ko moom. bis dama ñëw. bis dafa ñëw. fekk booba dem naa ci Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour. fekk dem na ci Seydi Hadji Mansour. ma ñëw sa maam ne ma. mu ñëw sa maam ne ko. naa ne yaa ngi jënd Medina Fall teere. gis naa ne yaa ngi teere. jënd jaxaw teere. jënd waaye mag ñi. waaye mag la fi bàyyi. te booba. la bëggoon dëkk dëkk Medina Fall bi. lu yee jaxaw. militaire ak policier yi la bëggoon waaye ba comme jaxaw lañ ma fa bàyyi. ma dellu jaxaw. beneen beneen bi mooy. keroog bi ma ko jëkkee nuyu. keroog ko jëkkee nuyu. la ma ne bala sa joxoon. keroog bala sa joxoon. seet bala sa joxoon. te néegu yaa koy def waaye yaa ko maam maa koy def. ma xam am na may. mu ne góor balaa dem man. balaa ci profité. dinaa ci mu xolam. seet ci moom te te billaahi wallaahi. billaahi wallaahi tallaahi. képp kuy digal maa ne wëli. képp kuy digal maa ne wëli yi. da ngaa yi. wëli yu. wëli ngay wax ak moom. ko jàkk di ko xool. te ba teggeekul ci moom te ba teggeekul ci moom. déclenché wu mu déclenché wu foofu. dem ci pays yàlla yi ñëw dem ca pays yàlla yi. présider ko présider ko. dellusi dellusi. te sa ci moom. wax ji arrêté wul benn yoon. wax ji arrêté wul mooy wax ak yow di defar teg yow te fekk moom dem na sa koy yàlla. moo ñëwaat jàll naa sa Aïcha. ci yeneen bi salaay salaam. ngeen doon loxo yeneen bi. ngeen doon loxo yeneen bi. taal lamp. taal lamp. ñu xool yeneen bi. ñu xool yeneen bi. bët set. ba bët set. yeneen bi ne ko. biig la ñaan naa. bi biig la ñaan naa. mu ne ko non non non loolu moo tax. man man sama bët. sama bët teggeeku ci sa jëmm ji ba bët set. demoo fenn. demoo fenn. xëy na da nga doon génn. xëy na da nga doon génn. yeneen ci génnal ko. ci yàlla. ne ci yàlla. ni ko man ak sama jëmm yëpp dem nañu riñaane. waaye booba. waaye booba. Aïssa. Aïssa. wàllu wàllu op jamaadaat. ya wàllu jëmm jëmm ji ñu yor waaw. la doon waxee. la doon waxee. waaye yeneen ci. lan doon waxee. ëpp na xelu xaalis ëpp na xelu xaalis mënu te góor yàlla yëpp ni dem na maam Cheikhul Khadim maam Cheikhul Khadim bu doon bu tubaab bi rek bu doon pexe tubaab yi tubaab bi rek lu dellu si waaye yàlla la àndal waaye yàlla la àndal yàlla kon ñun. kon lii sama point fort. lii point fort. mooy yëngatu benn benn kii waaw. kuñ ko wax. mu gëm ko di nangu naa. waaye nag su may wax. waaye su ci sëñ Mansour. mën naa ci ñett. la tax koo ak moom. ku ne. ku ne. sëñ Mansour wan ko ko. am na lu wan lu bëri loo xamante ni sëñ ko woo sax. waaye ne woon na ma demal demal. tàmbali jumaa ja. tàmbali jumaa ja. ma fekk la fa. ma la defal. ma wan la gannaaw. balaa na ma la nga li ñëpp doon wut ci man jox naa la ko wax nii moom lay wax ci kanamu doomam am na lu ko wax loo xam ne seen wax na ko. dëggal nañ lu ma wax. dëggal nañ la ñu wax. li mu wax moo loo xamante ni. seen baay wax na leen ko. kon kon. yal na yàlla dolli sutura. yal na yàlla dolli sutura yi. doon ñu taxaw kontaanee. képp ku fi ñëw. ñu ngi ñaan yàlla. alaaj Malick Seye. alaaj Malick Seye. benn. benn. Malick Seye benn. Malick Seye benn. ñu dëkk ak yéen fii. ñu dëkk ak yéen fii. baax la. baax la. am na may. am na may. baayam bi. waaw baayam bi. ak maamam bi. ak maamam bi. ñëpp ay wëliyu la. ñëpp ay wëliyu la. moom moo la wax loolu. xam nañ baay boo xam ne. xam nañ baay boo xam ne. góor gi Habibou Seye. Habibou Seye. Habibou Seye. amoon may. amoon may. wëliyu kaamil la. wëliyu kaamil la. moom la ñuy wax ni xam nga ko. baay bay doon. moom baay bay doon de. wëliyu la. sama maam. sama maam. Alxaaji Mouhamed Ndiéguène. wëliyu kaamil. bokkoon na ci xalifa yàlla yi. bokkoon na sa xalifa yàlla yi. Alaaji Malick Seye dafa seeti Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour. Alaaji Malick Seye dafa seeti Mouhamadou Mansour. mu ne ko mu ne ko. lii tey laa ko doog a nettali. lii tey laa koy doog a mu ne ko suma làmmiñ benn jëm. benn ci kaw suuf moom laa ko mu mar ko. mu mar ko. mooy Alaaji Abib Gaye. ca Thiès tàllal naa ko. ko mar na ko. képp ku ko bëgg a. sa yàlla. xam nga ak sëriñ. ni ko jigéen. lii mbaa dangaa juum mun la loolu ku dul nit yàlla mënoo ko Serigne Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu dafa am benn bis dafa am benn bis gouvernement bi état ko teg alal bu bëri kenn ku nekk la nga sol wax na téeméeri junni Serigne Saliou ñi ñuy seet si yaakaar ko ñu ñu teg xaalis bi. ñu teg xaalis bi. ñoom ñu ngi tiitaru. ñoom ñu ngi tiitaru. suñ Salim moom. suñ Salim moom. ñu mu toog ak ñoom yëpp. xel ma xel ma ma nga ca ndonga yow. li ñuy wax yëpp. li ñuy wax yëpp. bàyyiwul ci xel moom bàyyiwul ci xel. moom mooy bàyyi xel ndonga yow. yàkkamti na. yàkkamti na. bu leen neexee. bu leen neexee. ñu jël seen alal dem. loolu nit yàlla rek ku bari bisimilah yàlla yi képp koo xamante ne am na yërmande ci ñoom yàlla dina dimbali si àdduna dimbali la àllaaxira waaye ku soxor ci jaamu yàlla yi bala ngaa dee di ko gis. gis na moom ñaar ko mën a jooy lool mooy nit ku ne noonu. wala. wala. nit ku ne sama kër ci tàkku fa. wala mu ne sama kër tey ci tàkku fa. man sama portable. bu ma ko joxee portable ak moom ko joxe. oto ma bëgg nekk. oto bëgg nekk. dama koy du ma ko fay. moom du ko fay. ndax xam nga li may xalaat. xam nga li may xalaat. nit nekk ci lu urgent. nit nekk ci lu urgent. xalaat xalaat. xalaat xalaat. ba mu yàgg xelam ne yar ci. parce que yàgg rek xelam dem ci sëriñ bi fee. moo téléphone. ne man situation. mu ne ko situation nangam ak nangam ak nangam. wala nit. wala nit. fanaanee xalaat. fanaanee fanaanee xalaat. jaaxle jaaxle. benn mu yore convocation procureur. benn mu mu am convocation gendarmerie wala police. wala procureur. wala procureur. wala mu feebar. wala mu feebar. wala mu jaaxle. wala mu jaaxle. gàcce dëgmal ko. gàcce dëgmal ko. sutura su xawee ku dëgmal ko mu ne ko subaa jàmm ah seeti sëriñ bi xëy ñëw këram ñu ne ko mënoo ko gis na mu dellu ak rangoro loolu la xamul tas yaakaar boobu la xamul

mbir am gàllankoor sax. képp ku si sa mbir am gàllankoor mën maa def liggéey. jaam ñi képp ku leen yërëm. jaam ñi képp ku leen yërëm. am ndimbal ci ñoom. am ndimbal ci ñoom. yàlla dina la dimbali. gis nga nit. bor. bu xaar ba ne ko sama sama kër ci tàkk. soo ko xoolee rek. ko jël naan defal ko sutura naan loolu la yàlla bëgg loolu la yàlla bëgg gis nga gis nga saxaaba yi saxaaba yi ñu daanalee boobu ñoom ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ àndaloon pour jihaad benn saxaaba benn saxaaba mënut a wax ñaata nit la rey ñaata yéefar la rey mënuñu ko wax waaye fu ñu mujjee ñoom ñoom it dañ leen a rey yàlla xaqiqa la ko utilisé walaay rey reykatu nit koo gis yàgg yàgg dañ koy rey doonte aljana lañ kon kontaan nañ ci Mbacke ñoo ngi daal it Serigne As Issa Mbacke yàlla nit ku baax doomu aadama du ko dégg du ko gis ko xam waaye lu ngeen di ci réew mi ak dëkk yi daje na suuf saas yéene ko jàmm

Allah Allah Allah